Bismillahirrahmanirrahim. Qalb rahim qalabtu kulli li karim wa baxa tawbiix ikraam xultu bax baxa salaamaaleykum yéen ya, ñi nga xam ñi seetaan mbokku internet yu Saint-Louis TV Ñi ngi leen nuyu den leen bu baax baax tay am Euh ñew sét suñu ben papa ñu Mustafa ko Moustapha Thiam ñu xam ko ku ko xam-xam ni Seydina Mouhamed képp ko ñor tey ñëw war a amoon ay waxtaan xam ngeen gàmmu gi jege si na yoon la ñu daal di ñëw amoon ay waxtaan baax ke ñi nga xam ne dañuy seetaan donc nees tuuti rek dañ koy bàyyi moom mi nga xam ne mooy suñu invité daal di nuyu ñi nga xam ñoo koy seetaan salaamaaleykum papa ñu ngi lay siyaar bu baax waaleykum salaam nee na tuuti tabaarakallaahu mbir mi li li leen yëkkati mooy solo bi gën a màgg ci lu nit mën a am ci dundam ndax tabaarakallaahu euh, ki ngeen di toppatoo nii mu yont yàlla muhammad alayhi salaatu wa ñu dëgmal bisa bu tedd bii ngeen jóg ci di ci wut nu mën a yaatoo ba jullit yi jot ci dafa doon mbir moo xame ni jëkkewul ci mindeef ndax ki moom mindeef yi di yàlla sunu borom moo ci jiitu ñëpp ndax koo xamee ni Euh, ba ko yàlla dee génne ci leeri boppam la ko commencé di màggal di ko gàmmul ndax gàmmu mooy anniversaire u yonent bi keroog bi ko yàlla génnee ci leeri boppam di jël yi ci des di génnee ci leeram yàlla masut a jóg ci di ko màggal ak di ko gàmmul moom yonent bi alayhi salaatu wa mm-hmm. mu doon koo xamee ni mm-hmm. euh, nit ñi dañuy gàmmu rek ngir màggal ko. Mhm. waaye moom màgg na avant sunu gàmm yi. tey balaa may ñëw balaa ma ñëw si gàmm gi. Mhm. parce que dama bëgg balaa ma si gàmm gi. Mhm. ma daal di ñëw ci benn laaj bu am solo. waaw waaw ndaxte dama bëgg waxtaan bi mu nekk waxtaan boo xam ni. day mel ne na nga amal ki nga xam ne mii ngi doog dugg ci yoonu islam. war a xam kam mooy Seydina Muhammad. alayhi salaatu wa salaam waaw ci loolu laa nekkoon. ndax moom day wax ne anna. minallaahi man. ci yàlla laa génne direct. wal muuminuuna minni ci yoon woowu laa nekkoon. Mhm. ndax moom nee na. Mhm. man Mouhamed maa génnee ci yàlla. Mhm. direct. yéen ñi ci de yëpp nag yàlla ngi leen dindee ci sama leer. mu doon jëm joo xamee ni damay faral di wax ci waxtaan ne. su fekkoon ne yàlla dafa baaxoo woon am deuxième. ñu naan première yàllaa nga ne mais deuxième baa ngi nii. bu ñu nee première yàllaa ngi nii mooy kinu moom. bu ñu nee deuxième baa ngi nii Muhammadu lay tudd sant rasulullahi ndax moom rek a génnee ci yàlla waaw moom nag moo nekk jëmm joo xamee ni tubaarakallaahu euh, bi ko borom bi génnee ci boppam ba pare jël li muy defar lépp génnee ko ci moom jël ko nag génnee ko ci kaadaru yàllaam gi def ko jaamu yàlla wax ko ñaari baat moo ko tàggaleeg mu doon yàlla mooy kun abdi nekkal sama jaam mm-hmm. wa kun habibi nga dellu nekk sama soppe mm-hmm. loolu ko génne ci kaadaru yàlla mm-hmm. booba nag ba loolu amee leneen lu mu mën a doon yàlla nga ko génne ci leeri boppam bi mu ko jëlee ci leer yi fa fas yéene ko tàggaleeg jëmmi yàllaam ji xam ni moom du am yaay du am baay du am maam du am askan du am xeet du am xeet moom Euh, booba mhm. la ko yàlla jël nag jaarale ko ci ay maam ak ay xeet ak askan mhm. boole boole ko ci giir gu ñuy wax xuraysin ak banni asim mhm. wutal ko ay maam yoo xamee ni danga leen di wax ba ci benn maam nga taxaw muy adnaana adnaana waaw maamam la woon maamu yonnent bi la maam alaaji malik dafa wax ne euh, abdalaay mi jur yonent bi abdul mutalib moo ko jur Abdul Muttalib Hachim jur. Mhm. Hachim Abdul Manaaf jur. Mhm. Abdul Manaaf Xusey jur. Xusey mhm. Kilaab moo jur. Kilaab Murata. Murata Kaab a jur. Kaab Luwey. Luwey Xaalib a jur. Xaalib Féer a jur. Féer Malik a jur. Malik Nadar moo jur. Nadar Kinaanata. Xuseymata. Mudrikata. Ilias. mudar hmm. nizar maat hmm. ba ci addanaana hmm. addanaana boobu nag boo doon wàññi maamu yonent bi day nekk fukkeelu maam ak juróom benn wala juróom ñaar maam alaaji Malick ni boo ca accès nag na nga taxaw ndax ca gannaaw fële dafa am ñoo xamee ni ak ca dogale woon ak yooyu mu ne bu leen ko fa àggale ndax moom du àgg ci lu tilim mu ne addit nizaaran mahaadan man yu jaawisu addinaanan fa taksibo woo xat jaaminal alami bu ngeen accès ci àddinaa bu leen ko weesu ku ko weesu rek na ngeen ko jël ngeen dindi loola ba mu set weddi ko ndax bokkul ci lu tilim bon léegi nag bi loolu amee moom mbooleem ñi dugg ci diine islam war a xam jëmmam ji mooy kan ndax bu dee nit la aadama maamam ma sunu maam aadama yont yàlla Muhammad moo tax yàlla bindu Adama mi nu meññ ñun ñëpp mm-hmm. parce que nit mm-hmm. yàlla mu ko bind ci turu yont yàlla Muhammad ci la dem ba mm-hmm. mbooleem nit ñi kuy jéggalu sa bàkkaar ba ngay def yàlla ba ngay dem di tooñu yàlla yóbbuwoo sa turu bopp ba ngay tooñu yàlla yóbbuwoo sa turu bopp cheikh ba muy dem di tooñu yàlla yóbbuwul cheikh dafa yóbbu miim dem dellu miim deelu yont yàlla muhammad tooñce yàlla ok kon mu mel ni tey bu nu buggee topp topp mhm. da doon li nga xam ni day dafa dafa xaw a dafa xaw a gudd macha allah ndax ay ay mbiram ay mbiram mun ñu ko waxtaane ci xajul ci quinze minutes tamit gàmmu gi doon na li nga xam ni moom la ñuy moom ñuy waajal mm. tey këru diine yi foo dem macha allah ñu ngi koy waajal comme ni mu waree donc man li ma bëggoon xam mooy concept li nga xam moo di gàmmu gi gàmmu gi daal xam nga ñun nit ñun nit Cheikh. Mhm. ñoo koy màggal rek tuddee ko gàmmu. Mhm. waaye keroog bi ñu ko ëmbee moom. Mhm. bi ñu ko ëmbee. la ca jëkk a xew. mooy continuer ba léegi. ndax bu période bi ñëwee. sunu borom mooy jëkk a gàmmu mooy jëkk a màggal ñëpp. xam nga keroog biñ ko ëmbee nu yàlla def. dafa ni malaaka yi ñu ne naam mu ne tëjal leen ma buntu safara yëpp. ubbil ma. mbooleem buntu àjjana yépp mhm. ah sunu borom lu xew mu ne damay màggal. a ah, waaw. loolu boobu ñëwagul jamono wala. déedéet booba leer la. ñëwagul jamono mhm. booba. Mhm. leer gi la maam ami moo dugg ci maam Aminata ñu ëmb ko lëg léegi. premier nuit biñ ko ëmbee la li ma lay wax nii. yàlla dafa ni malaaka yi. tey jii jëlee naa seen sang. ca leeri àjjana ya dugal naa ko ci waajuram bu jigéen. dama bëgg nag ngi tëjal ma mbooleem bunti safara yi ndax man yàlla maa koy màggalal sam bopp avant yéen mbindeef yi avant yéen mbindeef yi ngeen di màggal man mi ko moom moom leen maa koy jëkk a màggal mm-hmm. waaw leen ma nag mbooleem buntu safara yi du mm-hmm. te ubbil ma mbooleem buntu àjjana yi nag uxlixat abwaabul jahim mm-hmm. ñu ne ah, mu ni wa fëtti at abwaabul jinaani ridwaani xoolal te yamul ci màggalee ko noonu guddi googu dafa dafa jël ngenaaw yi jóge ci penk ak ngenaaw yi jóge ci soowu ak yi jóge ndeyjoor ak càmmoñ mu centraliser leen ci kaw asamaan si xamal leen ni tey la ñu ëmb sang bi ngenaaw yi di ko màggale noonu ngenaaw yëpp di màggal guddi googu mu dem ca àll ba fekk fa bàyyi ma ya ni leen yëngu leen seen sang laa laa créé tey mhm. yaayam ëmb ne ko yéen gaynde gis til li mu bëgg a daw mu ne ko déet kaay tey kenn du lor kenn ndokkale ndax ëmb nañu yont yàlla muhammad tey sallallahu alayhi wa sallam bukki dajee kéwél mu nara a daw mu ne ko déedéet kaay tey du bisu lore tey bisu lante la bisu jàmm la ndax ëmb nañu sunu sang saydina muhammad alayhi salaatu wa salaam nga dem ci biir géej gi mm-hmm. planète yi la lay wax nga dem ci bir geej gi ñun ni ñu koy magalé ni ak di gam bu la yalla wonon heure bobu ni jeen yi def ci bir geej gi ngay xam ni kenn du sang bu tedd bobu planète bo dem dañuy gam tay bo duggoon ci bir geej jeen wu mag wu don lek wu ndaw di dundé dunde dañuy rombasante sen bop yi la lanté sen geen yi ku nekk yëkkati sa bopp fóon sa moroom ñuy déggalante mhm. ci juddu gi yonti yàlla Muhammad juddu tàmbalee ko ci ëmb ga ba ci juddu gi noonu lañ koy màggale waa géej mhm. wa basarat itaanul bahri mhm. baaduwa baadan bi zuhuri misbaa isalaam lisaanul aal di wax ci guddi gi ñëpp yi dégg rek guddi dégg ñu naan jóg leen jóg leen jóg leen te kenn xamul lu ñuy jóg <laughs> waaw Joglen len jo xamé ni mhm. ñi bañu na jog guddi gi ñëpp xam nga lal borom daf ci wara fanan waye mhm. waaye guddi googu ku bañu na jog ku ne mhm. bi nga déggé ni ëmb nañu yonent bi nga bañu jog salal sa lal ba dala bi tër ñi ci sa kaw la fanaan kéro mo ñak magal waaw ñi won magal ku ci sa ci sa kaw la fanaan kéro bi gaay yéwo gis seen xërem yi yépp ñatt seen وتنكست على رؤوسها الاصنام. لكنك ونتخذ دواب قريشين دابوي عربي جن تي البي نان اميلت امبنانيو برسول الله تي ينتي الله محمد ورب الكعبه كينو امب موي بروم كعبه موي نجيت الادنى امام الدنيا وسراج الانام موي لامب مندي في وسراج الانام موي لامب مندي في guddi googu loolu moo ci xew ci bi nu ko ëmbee bi muy gane jamono nag bi muy ganee jamono abal ganee jamono gi sax mboolem sunu jigéen yi lu ñuy yëg ci ëmb mbaa mu ñu ko yëg ci am doom Aminata ëmb na sunu sang bi ba mu ganee duniyaa te masu ci jaar dara xam nga nun dan naan kii dafa ñëndale wala day jafte am ñuy serati di tëfli am ñuy lekk ay këriñ mhm. am na ci ñuy lekk ay saabu mhm. fii ci sunu jigéen ñi yaayi ne loolu dalu ko na mu meloon ba ko dara jotul noonu la mel ba sang bi ganee adduna te ni mu ganee jamono mhm. ak nun nin ko ganee bokkul déedéet na mu def beneen liir bu ko defoon sa waajur wu jigéen daw bàyyi la fa wallaahi <laughs> dëgg dafa jekki ba ci yàgg yek ne mom jëmmam mu ngi yëngu le temps que jëmmam di yëngu mhm. mu jekki-jekki rek mhm. deglu ni teuf motax mhm. fi jaam ñi jaar di gane jamono ak fa mu jaar bokul mom déedéet ba mu déggee teuf rek ci jumbox bi la yar ni cëpp wadd yàlla allah taxaw ci saasa nak tisli xool kaw asaman ni alhamdulillahi rabbil alamin yàlla ni malaaka yi tontu leen seen sang juddu na ba mu may sant ñu naan ko yarhamuka rabbuka yaa xayral anam moom la Mouhamadul Bouchiri di wax ca téere ba ni hmm. raafi an raxsahu wa fi zalika raf ila kulli suudadin imaa'u sallallahu alayhi wa sallam hmm. borom juddu bu rafet boobu macha allah noonu la ganee jamono mooy sunu macha allah mu mel mu mel ne man mii sax nekk nii euh, waxtaan bi commencé na ma yóbbu ci ci aar maa ngi seetaan rek <laughs> waaw damay damay ñëw rek ci diggante Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul parce que si biir wax <laughs> dem nañ ba dégg ñi ni <laughs> mhm. euh, moom euh, màggale na gàmm gi mhm. fukki at ak juróom benn su ma juumul yoo xam ne na ko màggal te kenn mosu ko màggal waaw donc diggante mag Serigne Touba ci tënk rek waaw laa bëgg nga ñëw ma ci Serigne Touba bi muy màggal yonent bi bi muy màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam booba yonent bi nekkagul jëmm moom nekkagul jëmm la ilaha illallah booba bi nekkagul jëmm moom nekkagul jëmm cey loolu yéeme na di. maa la wax lii xam nga jëm yi ñooy màggalante fii. Uh-huh. waaye dama la wax ni. Uh-huh. xaadimu rasul gii nuy toppatoo. Uh-huh. Cheikh xam nga nun lu nu tardeel. ñun ñëpp dañuy jàng Bamba Mor Anta Sali ak Jaara Buso moo tax du lu sori. te du foofu déedéet. boo jàngee xaadimu rasul mhm. teg fee bamba mu ngi mel ni ngay jàng Seydina Muhammad jaar ko ci Abdalaay ak Aminata bu boobaa Muhammadu Abdalaay ngay jàng mm. waaye Muhammadu Rasulullaay dépassé na foofu salaam maa la wax lii mm. bamba moor anta seli ak xaadimu rasul bokk nu dara mm. naa dégg waaw dara mm-hmm. bu ko defee nag mm-hmm. moom xaarul ba affaire bi nekk fii mm-hmm. muy màggal fii bi mu ñëwee fii am na benn baat bu muy wax ci yi dafa wax ni ji nga xame ni moom la ñëpp dëgmal mu gënal yàlla lépp ñëpp dëgmal ko di wut lu ne ci moom moom màggal gi ma koy màggal moom moo ko sàkku ca yàlla ndax xaadimu rasul gi ma ne ba mën taxaw di ko màggale moom moo sàkku xaadimu rasul gi ca yàlla raama rasulullahi min ilahi kaw nii xaadimahu wa abdallahi ah. moo ko sàkku de kon bi nu ñëwee fii nag mhm. moom mi sàkku loolu mhm. bi nu ñëwee fii mhm. man sama yaakaar lépp moom laa koy teg hmm. zakal malazu lladi arjo najaata bihi fii kañ mu ni bis bu rëy boobu nga xamee ni ki ko organisé ki organisé bis bi borom bët bu rëy la bu dara dul raw Serigne Touba nee na. Hmm. koo fa yaakaar te du sama waaji hmm. la mu yor doyu ko ba muy sédd kenn. Hmm. ndax ponkal mu xiif. yor kuddu café akos palaat su ndaw. lan la jox du la doy ba ngay séddale. sama waaji daal. ñu ne amu ah, ne borom guddi gii. moo yor ba booli bu mag bi. togg ci garangaal gu mag gi te boo yor kuddu gu mag gi bu ëllëgee koo yaakaar ku dul sama waaji doo séddu doo séddale. zaakal malaazu. الذي أرجو نجاة به دنيا وأخرى فليت أو له جار bu dee ngir guddi gi la nag ah mooy guddi gi nga xamee ni ci la yàlla far bàkkaaru ñëpp guddi ñuy màggal ci la yàlla far bàkkaar mu mel da ngay da ngay daal jaale foofu rek tëjaale ka waaw waxtaan dafa dafa dafa am solo hmm. xam naa dañ koy daan ko gën a yaatal hmm. incha allah hmm. waaw dama bëgg nii nag ci deux rek nga tënkaale ko bu ko defee ñi ñi ñi jàppaat ko benn bis ndax mu nekk ni moom sama yaram tàng na jël euh, sang bu tedd bi xam nga lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam la yàlla santaane nga koy jëf jël sunna gàll ca waaye màggal Seydina Muhammad dafa doon sunna boo xamee ni sunna boo xamee ni boo koy def day téye sa loxo ba dugal la biir àjjana la ilaha illallah taasima woo bi sunnati yaquduna lil jannati bi izidi yaa li millati li muxlixin muasami gis nga mhm. kon màggal yonent bi ci la yàlla defarul defaral mbindeef yëpp sen mbir saa yoo ko nee moom la mhm. ci màggal ko mhm. yàlla ni la yow la moo tax julli gi nu koy jullil moom yàlla digunu ci àjjana déedéet baqara ba doo ci jàng ku julli nangami raka dem àjjana ci jàngit ku woor temps de weeru koor dem àjjana doo ci jàngit ku asaka tant de franc dem àjjana mbaa ku aj màkk tant de fois waye jakk ju yàlla nek iliman so ci julle be pare di werante ndax nangul nañ la waye cheikh bu yebo nga bàyyi te dem benen diine inna allaha wa malaikatuhu يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما alayhi salaatu salaam. loolu mooy résumé affaire boo xamee ni. boo ci téye di nga xam ne guddi gi. waxuma la sax di ca jëf. waaye boo tëddoon di nelaw sax. ba dégg gaa yi di way nga ni sallallahu alayhi wa sallam. yaa ngi ñoom a yam yool. barke guddi gee mele noonu. Mhm. borom guddi gi nag. Mhm. guddi gi nag. Mhm. nun ki nu yaakaar. muy Cheikh Ahmadou Khadim. moom desaluñu ci dara ci moom. kon ñu ngi koy sant. di ñaan yàlla. mbooleem lu nu ko jaamu mm-hmm. nanu ko fulal mm-hmm. ba mu ëpp mm-hmm. sunu ay ëmm mu joxal nu ko yonent bi addiya jox ko xaadimu rasul yoole ko sunu waajur yi toog jox leen ko ba nu doyal ci yërmandem mu soog a nu ci dox ci barke yonent bi yàlla nanu yàlla may ñu taxawee ko ay gàmmuy gàmm barke borom Touba ngeen jëf mel ni suñu xool suñu xool seet na loolu waaw suñu xool seet na loolu ndaxte li ñu doon séentu sax ba lu ñëwee dañu fekk li nga xam dafa kawe suñu njoot waaw di di ñaan rek nga gën fi yàgg lool ndax yow yow sagum lislaam nga te sagum yoonu murit nga waaw ndaxte saa su nekk fu la fekk rek nga bégal suñu xol yi teral na te ku la xam xam ni sa xol bi kenn nekk kenn nekk ci ku du yonent bi kenn nekk ku du sëñ Tuubaa waaw ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ki nga xam ne moo nekk si ginnaaw moom mi nga xam moo defar émission bi mu xam ne moom tamit assistant bi mi ngi topp ci liggéey bi mm-hmm. waaw di gërëm ñëpp bu ko defee rek mm-hmm. xanaa dañ lay bàyyi nga ñaanal nu mm-hmm. ndax bëgg nañ daal euh, sunu sunu chaîne bi waaw chaîne bi nga xam ne ay ndaw rek ñoo ko ñoo ko taxawal mhm. bëgg liggéey seen dëkk mhm. waaw amuñu amuñu amuñu amuñu amuñu alal amuñu dara waaye am nañu ngoru ak xam-xam mhm. taxawal suñu dëkk li nga xam daal bëgg nañu bëgg nañu ñu jëriñu si ñeneen jëriñu si ñu bëgg nga ñaanal ñu si nag mu am yokkute waaw ci ci bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam incha allahu taala incha allahu taala mm-hmm. eh, tabaarakallahu mm-hmm. damay faral di wax ni mm-hmm. ñaanuk ñaanuk mag dana nangu waaye dootul màgg soo ma ñaanalee mën na nangu waaye ñaan gi nga ma ñaanal dootul màgg de waaye yow ndaw da ngay màgg ànd ak sag ñaan ñaan gii ñu leen di ñaanal yàlla na ko yàlla nangu ci barke borom guddi gi daraja Cheikh Ahmadou Khadim bu ko defee mhm. day nangu ba pare lu ngeen gën a màgg ñaan gi gën a màgg te li ngeen di def nii xubbul mhm. watan min al iman mhm. bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk li ngeen di def ni mooy bëgg sa réew kon nag ci barke Cheikhul Khadim barke ñaan gi ñu waaj a ñaan yàlla na leen ci yàlla defal lu ëpp seen jort seen bi yàlla na dem ba mu supérieur chaîne yi nga xamee ni yëpp ñu ngi ci Sénégal barke borom Touba te yàgg mu ngi ci sunu kanam incha بارك الشيخ الخديم بارك بروم قاموغي يلا يلا نفلول بسم الله الرحمن الرحيم وافتع لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من خيراتي الله واسلك بنا نعج رشد واكفنا ذللا وترد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننهو ونغسله وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي أرن ويسرا كل ذي تعصير يا الله تويل لنا أمرنا صيح لنا بدن